Ah, ok voilà euh, tey nag ñoo ñoo ngi fi nga xam ni mooy zu. ah. Zowal. Mantane. liggéey nga bañ. d'accord. jaar xam man problème seede nga mais seede moo xoosu. dama bëgg nga may envoyé message may tontu mu gën gaaw pour ñu gagner du temps. waaw mais kii yaa ah, ñaaxarañ loo. du du du du dompem léegal. mais da ngaa yéex nag jaar tamit amu amoo temps conseil bi jël entrée bi ma jël entrée Wally Seck du am sens sama liggéey. waaw mais mais man ni ni laa waxee da nga des. mu yaa yéex rek ma lay yëgalee. ala ngaa bëgg ma noppi ten naan naa trop mais li li nga def li ma ko bu bëgguma waa léegi man émission bi ñu dañu comédie wala ñu def ITV nañ ko bàyyi bu fekkee day wax nga may eggali ah yow bëgguma eggali la non non kon demal waaw ah fi nga xam ne mooy Joal Joal fa fajut muy muy ko ko concert wu kii daal di ba ba bala wax sekk kii ña ña ña ñaax xale yi nuyu naa fay naa la soxna Diarra mbaa yaa ngi ci jàmm. waaw ah, maa ngi sant. naka xéwal yi naka xéwal yi. léegi yow looy lii rek looy rek ak kii ak ku ku coupel. mi ngi ñaaw de. Ah, ok ba ñu ñu taxaw ñu ngi taxaw su su suñu benn moment boo xam ne kenn du du leen ko présenté. man tane. changer liggéey nga bañ. présenté. ay ay ay kii non yaay la respecté naa la macha allah muy fenk si leer yëpp ñu gën koo xam si euh, tata alima ta kon yaay way kon est eh kon duñ coupé kon non wax ji xaw a yéex quoi waaw man man ni la mel nii la ma ne ah waaye doy na waar daal mais sa interview dina doy waar de waa da ni nga amee sa te kon da nga koy continuer moom pour la question bi ma la bëgg a posé. mais est-ce que ku biiram di metti dina mën a nekk ak yow. mënta ne. yaa kay ma xool. léegi léegi yaay booy ñëw fi fi nga xam mooy du. tuta. E eh, qui qui cu cu. Tupe. Mingi nyao de. <laughs>